ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wollum xarala gi mooy suñu technicien mbidi di mendi Mendy mbokk yi bési gaaw bi di tey ñu fas yéene wéttalante ki yéen lenn ci la nga xamante ne mooy suñu waxtaanu diine waaye lu jiitu loolu ñu leen di fàttali ne tey mooy bisu gaaw tombeek ñaar fukki fan ak benn ci weeru tamxarit mooy weeru almuharram waaw ñu di leen fàttali ne rek <clears throat> la nga xamante ne mooy gàddaay yonent ak suñu jonn yàlla ji di tey euh, moo tombek mille quatre cent quarante six ans mille quatre cent quarante sixième année ci la ñu nekk ni moo tombe gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ñu di ko fàttalanteeg mbokk yi bi iznillahi subhaanahu wa taala mbokk yi xam ngeen ne boroom xam su mag di xasanul basri rahimahullah dafa am la mu wax doomu aadama bi mu ne ko ibnu aadam innama anta ayyamun kullama zahaba yowmak zahaba baaduk yow doomu aadama bi xamal ne ah, bis yàlla fi tax toog bis yàlla fi tax a nekk nag mooy bés yeey ñëw di jaar di jàll na bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne am na lu wàññeeku ci yow ñu sant buur yàlla moom mu ñuy xéewalal ñu fekkee bés bi di gaaw ji tey mu tombeek ñaar fukki fan ak benn ci weeru almuharram te moo tombeek gàdday yonent bi sallallahu alayhi atum junne ñeen téeméer ñeen fukk ak juróom-benneelu at di leen fàttali ne rek des na suñu diggante ku weeri koor euh, deux cent dix-huit jours deux cent dix-huit jours moo des suñu diggante ku weeru koor weer bu mag boobu ñuy ñaan yàlla suñu borom buy ñëw yal nañu fi fekk waaye buy dem yal nañu fi bàyyi te lépp luñ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu amiin yaa rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot ñu di leen fàttali ne rek ñu ngi ànd ak yéen ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 su ko defee ñu géem a wéttalante ci la nga xamante ne loolu lañ doon waxtaanee démb mu tollook euh, la nga xamante ne mooy waxtu génnee azak mbokk yi génnee azak ci alal bala yàlla dénk yow jullit bi da lu war waaw da lu war de ndax yàlla ma la ko sant moo xam la tax mu sant la ko kon yonentu ba ñëw jàngal la ne diini boobu ngay dund ne yow jullit nga kenn nga ci maam membre jullit ñi ba tax na ñu di la konsidere comme jullit bu la yàlla mayee alal ju toll ni mu fekk ren déwén ba ren daaw ba ren te sa soxla ak guti mu wóor na la war nga si war a mën a génnee azak ngal la waaye nanga nga góor góorlu laabal sa bakken xamal ne xadis abdullahi bun omar bañ doon wittalantek yéen démb daldi xadis bi nga xamante ni kenn ku nekk ci pincum jullit ñi war nga war a mën a bàyyi sa xel ci génne azakka joo xamante ne loolu nekk ci sa alal moomoo ko waroo koo jëfandikoo waroo koo lekk waroo koo naan waroo koo utiliser waaw mbëggeel cofeel ak moomeel ak foqale bu mu la dab ba nga jël la nga war a génnee azak nga moomale ko sa bopp ba tax na tey ci waxtaanu fajar ba ñuy wéttalanteeg mbokku auditeurs yi ci réew mi FM 97.5 tey ci kàttanu yàlla ñu indi leen la nga xamante ne mooy xissa banu Israil la ñu yonent bi nettali ci saxiixal Buxaari ñu fas yéene ko wéttalante ki yéen su ko defee ñu daal di xool xissa bi nu mu demee bi iznillahi subhaanahu wa taala saa ilina mawla jalla wa ala ñu ngi koy ñaan moom buur bi tabaraka wa taala yan ñu ko yàlla yombalal yan ñu ko yàlla yombalal biñ ko mën a faram-fàcce comme niñ ko bëggee waaye buñ ko defee ni yan ñu yàlla mi dégg topp ñu war ko mën a jëfe amin ya rabbal alamin mbokk yi hadis bi min saxiixul qisasu nabawi xadis bi mu ngi jóge ko ci xadisu qissa eh, waxtaan ba yonentu bi waxtaanee sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain seen jamono mu di leen baaxee la nga xamante ne moo nekk len ci eh, waa banu israil eh, mbokk yi waa banu israil dañ ay xeet yoo xamante ne Euh, yonent bi salaa sallam da koy waxtaane xiitam day faral di waxtaane jaar-jaaru waa banu Israël lu bari bari ngir xiitam man si war a mën a jànge ba tax na ñu ngi jële qissa bi min saxiixul qisasul nabawiya waaw qissa bi ñu ngi ko jëlee ci qissa Euh, waxtaan ba yonent bi waxtaanal saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ngir ñook ñoom ñëpp ñu bokk njëriñu si euh, la nga xamante ne mooy qissa bi moo tax mu ne qissatun abras wal aqra wal ama histoire la boo xamante ne yonent bi rencontré na ko sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain kenn si ñoom di borom yaram bu am melokaan bu weex ak bu ñuul ñaari kuréel yooyu waaw buñ ko mënee duppee euh, la nga xamante ne mooy boroom ñaari yaram yu am ay tupp-tupp yooyu keneen ki mooy aqra mooy koo xamante ne bopp bi daal mënul sax karaw te anamu boppam na mu mel nit ñi dañ koy seexloo ñetteelu nit ki mooy ki meloo melokaanu silmaxa kooku bët bi du gis du mun a xool ñu nekk ci pencum waa banu israil waa banu israil daal di leen xeep lool waaw waa banu leen xeeb lool ñu doyadal leen kenn faalewul leen suuraale ñu leen ci lenn kenn du leen jege kenn du leen tudd kenn du leen taas kenn du leen boole ci lenn waaw ñu bokk di dund ak ñoom nag moo tax xadis bi commencé ci an abi hurayrata radiallahu anhu annahu sami'a nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna salaasata min bani israil abrasa wa aqra wa acma fa araada allahu an yabtaliyahum fa ba'atha ilayhim malikan fa ataa al abrasa fa qaal ayu cheyin ahabu ilayk qaal lawnun xasan wa jildun xasan wa yadhaba anni alladi qad qadarani nnaas qaal fa masaxahu fa zahaba anhu fa kadarahu wa aata lawnun xasanun wa jildun xasanun qaal fa ayu maalin ahabu ilayk qaal al ibil naam mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot xadis bi abi hurayrata radiallahu anhu moo ko nettali nee na dafa dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu doon nettali qissa waa banu israil ñetti jëmm ya fa nekkoon ñetti jëmm yooyu bokk na ci borom yaram bu yàqu buñ ko mën mënee tuddee pune walla borom yaram bi nga xamante ne yaram bi dafa am ñaari couleur am am na yu weex am na yu ñuul ba tax na nit ñi dañ ko daan seexlu mu doon melokaan boo xamante ne kenn bëggut a jëflanteeg moom ci lenn ñaareelu nit ki nee na kooku mooy boroom bopp joo xamante ne bopp bi daal kenn mënu koo xool ndax bopp bi nu mu mel ci ayib ya ko yàlla natoo mu nekk jëmm joo xamante ne nit ñi daanoon nañ ko doon daw di ko siixlu daawuñu ko suur ci lenn ak silmaxa joo xamante ne moom daal daawul gis ñoom ñett ñoo nekkoon ci pincum waa banu Israil nit ñi faalewuñu leen suurewuñu leen Euh, voilà boolewuñu leen ci dara daal waaw léegi nag buur yàlla tabaaraka wa mi dara teewul mu bëgg a boole ñooñu ci biir askan bi mu daal di leen nattu moo tax mu ne fa araada allahu an yabtaliyahum buur yàlla daal di namm mu daal di leen nattu nattu bi mooy lan ki ko bëgg xam nang ñu topp ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew mi fm 97.5 ci waxtaanu fajar bur yàlla mbokk yi mu daal di namm ci jëmm yi ma nii ngir mu daal di leen teg natt joo xamante ne da leen yónnee malek mooy malaaka moo tax mu ne fa baata ilayhim malikan mu daal di leen yónnee ab malaaka joo xamante ne fa atal abrasa mu daal di dikki ci koo xamante ne kooku mooy boroom yaram bu yàqu bi mën nañ ko tuddee puune am nañ ñu koy tuddee ngaana waaw mu daal dikkee ci jëmm jooju bu malaaka bi dikkee ci boroom yaram bu am melokaan ju doywaar yooyu la tax nit ñi siixlu ko fa qaal malaaka bi ne ko ayu shay'in ahabu ilayka ana lan nga gën a bëgg ci sa jëmm ji qaal borom yaram bu yàqu bi ne ko lawnun xasan ah, man de damaa bëgg pou bu rafet teem rafet la bëgg de teem bu baax boo xamante ne wala nit ñi dañ ma koy xoolee waaw ma bëgg teem bu baax wa jildun xasan ma am der bu rafet waaw teem bi rafet pou bi rafet wa yazhaba anni alladi qad qadarani nnaas waaw la ma nit ñi di xeebee la tax nit ñi xeeb ma ñu di ma doyadal loolu daal di deñ ma takkale ko loolu loolu moom bëgg naa ko de xaal malaaka bi ne ko fa masahahu fa zahaba anhu waaw malaaka bi daal di raay yaramam loolu nekk ci moom comme ayib loolu nekk ci moom la tax nit ñi di ko séexlu loolu daal di deñ wa aata lawnun xasan mu daldi am waaw teem bu rafet wa juldun xasan ak der bu rafet qaal fa ayi maalin ahabu ilayk malaaka bi daal di ko laaj ana lan nga gën a bëgg ci alal qaal ah, waa ji ne ko waa ji ne malaaka bi ne daal man léegi li gën a bëgg ci alal mooy al ibil waaw gëléem bu jigéen joo xamante ni daal mën naa jur ma am géttu gëléem may naan ci meew bi di lekk ci ndawal bi di ko jaay di am alal loolu moom bëgg naa ko ci moom waaw aw xaal wala mu ne ko baqara shaqa waaye bu ma amee tamit ay nag yoo xamante ne dinaa leen war a mën a jëfandikoo daal waaw ma di leen sàmm yow tamit neex na ma de fa aata naaqatan ushra ushra ah, fa aata fa uti naaqatan ushra mu daal di ko jox gëlëm ji nga xamante ni dafa ànd ak doomam yeeg waaw géttu gëlëm mu daal di am géttu gëlëm ci gàttal fa qaal baarakallahu laka fiiha malaaka bi daal di ko ñaanal mu ne ko yal la yàlla barkel ci lii waaw ah, waa ji daanaka bu dee suñu jamono yi teel a ma amaana waa ji da ko ne nangu ñaan bi malaaka bi daal di dem yonent bi mooy rencontré xadis bi ci sahaaba yi histoire waa banu israil sallallahu sallam nee na fa atal aqra malaaka bi daal ñëw dikki dem ci ki nga xamante ni mooy borom kawar bu leel bi nga xamante ne bopp bi dafa bindoo bind mbindin bi nga xamante ni nit ñi dañ koy siixlu waaw bu mu ñëwee ci moom nag fa qaal ayu cheyin ahabu ilayk fa qaal ayu cheyin ahabu ilayk ana lan nga gën a bëgg yow qaal borom bopp bu leel bi ne ko chaurun xasanun dama bëgg karaw bu rafet sama bopp bi karaw bi rafet muy lang ñëpp di ma xool ñuy wax sama karaw bi nu mu rafete wa yazhaba anni lidi qadarani naas ma taxale ko la tax nit ñi di ma siixlu ma taxale ko la tax nit ñi di ma daw loolu moom bëgg naa ko de karaw bu rafet karaw buy billi karaw buy nes-nesi bu leer waaw rafet a xool nag la ma nekkee nii nag loolu daal di dañ loolu moom bëgg naa ko de waaw xaal malaaka bi ne ko fa massahahu mu daldi ko raay mu raay boppam fa zahaba anhu loolu daldi di denci jëmm jooju waaw bopp bi sax karaw bu rafet karaw bu nit ñi mën a xool waaw wa aata shara xasanan wa utiya sha'ran xasanan mu daldi ko jox ba waa ji am karaw bu rafet bu nice buy nes qaal malaaka bi daldi ko laaj mu ne ko fa ayu maalin ahabu ilayka ana wan alal nga gën a bëgg xool waa ne ko ah man de bëgg naa baqaran bëgg naa nag waaw bëgg naa nag nag bëgg naa nag de nag moom ba ma ko amee dina ma neex lool nag bu jigéen waaw loolu mu yittil fa utiya baqaratan ñu daldi ko jox lii di nag xaamilan nag ju toll ci diggante nag ju ëmb waaw nag ju jigéen ju ëmb nga xamante ne buy jur rekk am na bénéfice fa qaal malaaka bi daal di wax waa ji ne ko barakallahu fiik la nga am ni lañ la jox ni yenna la ko yàlla barkel waa ji bu dee suñu jamonoy teel a amaana da ko naan amiin waaw ne ko amiin malaaka bi daldi di dem xaal malaaka bi daldi di jóge ko ci waa ji mu daldi dem mu daldi di jóge ko foofu xaal fa ata abi hurayrata nee na yonent bi nee na malaaka bi daldi dem ci silmaxa bi nga xamante ne du gis kooku dañ ko daan wommat di ko yóbbu bum dikkee ci silmaxa bi ci gumb bi mu ne ko fa qaal mu ne ko ayu cheyin ahabu ilayk ana yow lan nga gën a bëgg qaal silmaxa bi ne ko an yaruddu llahu ilayya basari yàlla delloo ma samay ñaari bët ma di xool comme ñépp lu waaye xool ma gën ko koo gis la waaye xool ma ma gën ko kaa xool may xool ni ñëpp may gis ni ñëpp loolu moom bëgg naa yàlla delloo ma sama bët de waaw ah, loolu moom bëgg naa ko waaw ne ko an yarudda allahu basari fa absiru bihi nnaas ngir mayim xool nit ñi la nit ñi di xool ma di ko xool may gis nit ñi loolu moom bëgg de qaal malaaka bi ne ko fa masaxahu fa radda allahu basarahu malaaka bi daal raay xarkanamam yàlla daal di delloo danga xamante ne mooy ñaari bëtam yàlla daal ko ko delloo qaal malaaka bi daal laaj waa ji mu ne ko fa ayu maalin ahabu ilayk ana wan alal nga gën a sopp ne loolu nga bëgg nga yore ko ban alal nga gën sopp ngir mu nekk sa moomeel qaala al ganam waa ji ne ko man daal bu mu amee béy xar waaw jur yu gàtt yi daal yooyu moom yu ma soxal la yooyu moom bu ma ko amee moom dina ma neex lool fa utiya shaatan wadaan waaw ñu daldi ko jox waaw xar bu jigéen bi nga xamante ne waalidan waa xar bu jigéen ju am doom fa anjaba mu daldi jur doom ci saasi haazani mu ne ko gis nga ñaar ñi de wa walada haada lii moyki ki jur lii mu daldi ko jox mu ne ko fa utiya shaatan waalidan mu jox ko xar waa ji am xar bu jigéen waaw waa ji am xar bu jigéen silmaxa bi de mu am xar bu jigéen fa untija xaazaani wa waalidan xaaza mu daldi am xar bu jigéen bu am doom waaw ci saasi mu am xar bu jigéen bu am doom qaal fa kaana li haaza waadin mu ne ko euh, gis nga xur bi li fi nekk ci lépp yaa ko moom weneen xur bi li fi nekk ci gàtt lépp yaa ko moom minal ibil wali haza waadin minal baqar wali haza waadin minal ganam mu ne ko gis nga xur bi dina fees dell ak ay gàtt maanaam mu di ko tegtal ay gétt daal waaw ñetti gétt yi moom de géttum xar bi yaa moom géttum gëlëm yaa moom géttum nag yi nekk fii yaa leen di moom wa li haza waajun min al ganam qaala summa innahu ata abrasa waaw gannaaw bu mu tàqale ko ak silmaxa bi mu daldi ko joxoñal ay xur yay fees del ay gëlëm nag ay xarak bëy mu ko xur yooyu noonu yépp xur wii dina musa fees ak jur yu gàtt yi xar ak béy mu ne ko weneen xur bi dina musa fees dell ak ay gàtt ak ay jur yu nga xamante ne ay nag lay doon weneen xur bi dina musa fees dell ak gétt goo xamante ne ay gëllum lay ñuy doon waaw ginnaaw si nag ba mu am ab diir yonent bi nee na qaala summa innahu atal abrasa jamono daldi dox ñoom ñépp ñu doon ñu woomle ci seen gox googu ñu dekk patron goo xamante ne ñéppay waxtaanee seeni mbir ngir nu ñu amee alal ngir seen alal yi nu mu toll ginnaaw si yonent bi nee na malaaka baleen njëkkoon na consulter ba mu jaar ñoom ca fam leen fekkoon ak nañu nekkee woon malaaka boobu mooy ñëw ak anam ba gaana bi nekkoon bu mu ñëwee fii suuratihi ci melokaanam ba mu daldi ko ko wax mu ne ko fii hayatin fa qaala rajulun miskin malaaka bi ñëw ne ko waaju amul dara la sakku dimbal sàkku ndimbal ah, may dimbale qat in qataa bi xibaali sama soxla dagg na soxla naa ko ma dimbale de maa ngi ci yoonu tukki ana ku may dimbale way walloo ana ku dimbale fala balaaru lii al amul kenn ku ma yaakaar tey ku dul yàlla mi ma bind ak ginnaaw si yow mi ma yaakaar moo ne ko fala balaaru lii al yowma billahi summa bik mu ne ko tey daal gannaaw yàlla ki ma yaakaar mooy yow mi waaw asaluka maa ngi lay ñaan billazi ci turu booru bi nga xamante ne ataaka lawnan ki la jox der bu weex der bu rafet peau ak teint bu rafet wal maalun bi xayri ibtilaagu alayhi bi safarin waaw ci ki la jox alal joo xamante ne am nga ko ci lu nga nekk ci yoonu tukki maa lay ñaan dimbali ma yonentu bi ne bu malaaka bi waxee lii fekk mu ngi nekk ci melokaanu ngaana ba woon na mu nekkee woon tey mu dikkee ci melokaan woowu ngaana bi amul dara lam ko wax lu dul fa qaal al xuququ kathir responsabilité ba nekk sama kaw bari na lool ma jël dara ci la ma yor mu di ko dimbali nit waaw nii ngeen fi nekkee rek da ngeen di xaar ba nit ñi yore seen alal ngeen di taxawaalu seen buntu di leen wax seen problème taluma la man responsabilité ba sama bopp moo ma doy fa qaal la lahu malaaka bi ne ko ka anna araftuk man de mel na ni xam naa la de waa ji ne ko man ne ko waaw kay malaaka bi ne ko alam takun abrasa xanaa nekkoon nekkoo fi woon ngaana goo xamante ne nit dañ la doon ndaw nit ñi dañ la doon siixlu waa ji ne ko man ah mu ne ko non mu ne ko danga ngaa fàtte mu ne ko man non mu ne ko ah bon ne ko daa nekk woon ku ñàkk mu ne ko non góor est-ce que jaawale waloo ma waaw ne ko anaa du la euh, nga xamante ne moom nga euh, doon laaj mu ne ko non man lii nii ma yor nii sama alal bi ma yor nii fa ata fa ataaka allahu qaal fa qaal innama mu ne ko déet man li ma yore nii du yàlla moo ma ko jox man lii innama waristu haadha al kaabiran an kaabiran lii samay maami maamaati maam ci ñooñu laa ko doon na waaw kañ teel a xam maamaati maami dañoo amoon alal waaw waa ji daal ko wax loolu malaaka bi ne ko fa qaal in kunta bu dee li nga wax ni nii ban fen la ah yal na la yalla delloo ci sa melokaan waaye li nga wax nii bu dee dëgg la tamit ah yal na la yàlla dégg mu daldi di jóge ko foofu mu ñëw ci ki nga xamante ne mooy borom bopp bu am ayib borom bopp bu euh, sikk bi waaw bu mu ñëwee mu wax ko comme li mu waxoon euh, ngaana bi waa ji ne ko euh, ngaana bi lu ko tontu la ko borom borom borom bopp bu leel bi tamit tontu moo ne ko xanaa nekkoo woon koo xamante ne amoo woon karaw amoo woon dara nga nekk faqiir ah mo ne ko déet man it lii dama kaa donn ci samay maamaati maamaati maam mu jóge ko foofu mu ñëw ci borom gëm mu ñëw ci silmaxa bi nga xamante ne moo daadul gis nga xamante ne daawul gis waaw moom yàlla dakaa teg nattu silmaxa ba mu ñëwee mu wax ko comme lu mu wax ñaar ñooñu waaye kooku nag mooy koo xamante ne moo delloo naar bi xoromam mooy koo xamante ne mooy ki delloo yàlla njukkal waaw am naa ne waxtu bi xoj nañu waaye ñu tënk ko si ni mu gën a gàttee waaw bum ko waxee loolu mu ne ko xanaa du yow yaa fi nekkoon ku doon ku gumba xanaa du yaa fi nekkoon koo xamante ne gars yi faale wuñu la ñu si penc bi mu ne ko aha kañ man la de waaw mu ne ko man la de jaawalewuloo ma de man mii la mu ne ko euh, fa qaal qad kunta ama mu ne ko naam man la dama gumba woon silma xa woon daw ma gis fa radallahu ilayya basari yàlla daal di ma delloo samay bët mu ne ko man la de waaw malaaka bi ne ko maa fi jaaroon mu ne ko kon nag nañ dem si gétt la ma diggoon am na de am naa lu ne gàññ mu daal di ko wax ne ma euh, silmaxa bi euh, léegi bët bi gis na mu ne ko mu ne malaaka bi ne fa xus ma siita waaw na jël lala neex si gétt gi daal yaa ko moom jëlal la neex su ko defee nga dem ak moom mbokk yi waxtaan bi jeexul xadis bi lu si des euh, bari na tuuti waaye ñu yëmandek yéen fii incha allah bu ñu del si waatee beneen jamono ñu daal di wéyandek yéen la nga xamante ne mooy li des si xadis bi mbokk yi bala ñuy tëj xadis bi xulaasa bi mooy suite xadis bi lañ si war a mën a déggee ci waxtu yu gàtt ñaari minutes yi des mooy ne yow jullit bi lala yàlla jox ci xéewal nang ci sëdd nang ci suuraale nang ci yekkal njabootu yàlla ñoo xamante ne yàlla dafa dogal seen loxo jotut seen ginnaaw nang leen taxawee ci jamono yi génne azaka la ñu nekk war nañ kaa def n'importe quel moment naam war nañ kaa def saa su ne waaye nag ndegem atum daaw ba képp ku mu fekk nga yore loo xamante ne sa soxla nekkagu ci ak nu ñu bëri bëri bëri soxla waaye nañu sedd yàlla nañu sóoraale yàlla ci zakaatu alal ba ñu yore ñu war ko génne jox ko ñañu yàlla ne ñooñu lañ ko wara a jox buñ ko deful kon delloowu ñu yàlla njukkal santu ñu yàlla ci xéwal bum ñu defal su ko defee nag yàlla am na sañ-sañ bu ni mel am na sañ-sañ façon bu ne mun na laa roof loo xamante ne mënoo njëriñ mënoo too njëriñ mënoo too am accès ci sa alal mun na laa roof gàllankoor goo xamante ne dootoo mun a bénéficier wu sa alal yàlla si boppam mu daal di jël azakay alal bi génneel ko boppam ci anam joo xamante ne du doon li la génnal kon balaa loolu di ñëw balaa loolu du ñu dab ngalawaay nañ leen jël suñu alali ñu génnee ci azaka joo xamante ne ki ñi yàlla ni ñooñu lañ ko war a jox ñu jël ko jox leen ko ak xol bu rafet gis ngeen ñetti nit ña doon dund ci waa banu Israël askan bi faale wu leen penc bi sóoraale wu leen ci leen ci dara ba dara booloo jeex waaye nag yàlla da leen bëgg a essayer xool ba xam mu daal jël malaaka yónni leen ko mu jëlee leen ci zéro yóbbu leen ci euro jamono di dox mu ñëw ci melokaan ba ñu nekkee woon ñu daal di ko jànni ñu daldi ko wax ne responsabilité bi bëri na mënu ñoo génnee la ñu yore di ko joxe ñu daal di andi ay ngante yoo xamante ne ku leen ko defoon ci jamono ba ñu nekkoon du doon lale la neex tey ñu ngi ne ñu di ko def koo xamante ne moo mos a ak ñoom ci voie bu légal voix bu normal ci personnalité ak ci diplomatie tey ñu ngi nii ñu di ko jàndi di ko ne responsable bu ñu gàll bëri na lool ba tax na mënuñoo génnee dara si lu ñu yor di ko joxe kon ñii delewuñu yàlla njukkal kon lii la reen réew mi FM 97 andil ci waxtaanu fajar bi Euh, lan nekk ci waxtaan bi jeexagul dañu war a jébbal béréb bi ñu war a tas xibaar ci nasaraan ñuy ñaan yàlla suñu boroom mu meññu dégg ak toppa allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahuma aimmatana wulata umurina allahuma ya rabbi ihfaz biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan aqulu ma tasmaun assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa